salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk diaspora salaamaaleykum le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye salaamaaleykum le premier ministre monsieur Ousmane Sonko euh, man Assane Diouf defe naa ne soxlawul ma leen di présenter sama bopp parce que dañoo ànd xeex xeex xeex bi yëpp nag commencement ba fin. xëy na nit ku nekk am nga droit ànd ak ki la neex ma dem ànd ak ñi nga xamante ni ñoom la ma seen ay wax doy cent pour cent comme ni ñeneen ñëpp amee droit dem def loolu muy le président Khalifa Ababacar sàll ak mon frère Barthélemy Diaz yaa xam noo noo leen noo leen jugé nag nga xam naa ne ñoo la gën junni yoon ak koo mënti doon ak noo ko xalaate loolu man maa ko wax man la concerné benn ci jamonoy élection yi dama am fu ma féete amul problème fan yi passé dama génn def benn vidéo wax ci benn waay benn dooméram bu nekk Amérique dooméram pire bu nekk Amérique tudduma turu kenn nee naa ay influenceurs yu influencé pour benn dooméram pour ñu fal ko conseil tudduma turu kenn de <laughs> tudduma turu kenn dafa am benn dooméram dooméram boobu ndekete mi ngi biir Amérique dooméram bi génn na tontu jamono bi nga xamante ni Amérique ay junni junni doomu aadama fa nekk bi mu génnee tontu dafa wax ne man Assane Diouf dama <laughs> dama sàcc permis am dooméram boobu musuma dawal ci permis bu am turam dooméram boobu foofu rek laa ci yem te li mu wax noonu ne poids lourd nangam nangam yéen ñi nekk Amérique dem leen ngeen google ko ci turam moom ah dooméram boobu musu cee am poids lourd barke yonent yàlla Muhammad day duul dooméram boobu nga xamante ni man avant may ñëw Amérique lañ nekkoon Amérique di sàcc ba ñu rëfule ko mu dellu siwaat Amérique continuer di sàcc ba tey jii muy sàcc riirum Assane Diouf ñëw mu langaamu ci taxawal benn groupe moom ak suma jabar suma ay nit ay Mouhamed Fadel Dieng ay euh, Ren Diop Viviane Sophie ay ay ay ay Ousmane Sow ay ay ay nit yu baree bari ñu dem ba benn jamono doomeraam boobu dégg riirum Pastef mu dem langaamu ci sàcc fen sos triande doomeram boobu moom moo génn ne man dama sàcc permis am non problème brother man maa sàcc sa permis waneel preuve yi dégg nga waneel preuve yi yow yow parce que yow nee nga ci yàllee preuve te yow preuve yëpp nga mës a am preuve yëpp nga mës a am yow sénégalais yëpp xam nañ loolu parce que bis bu nekk nga teew duul fen sosol gor xamali ma la def nga ko ci Barthélemy Dias mon frère xam nga sosol ko fen xam nga te lépp nga xam ne ay duul la ah, te ba léegi indiwoo preuve yow doomeram bi ak keneen ak keneen ak keneen Khalifa Ababacar Sall ba ci ay nit yoo àndal tey ci opposition bi sàcc Ousmane Yara foofu rek laa yem Ousmane Yara benn politicien la xawma benn entrepreneur xaw ma nu koy waxee bu nekk fii Sénégal foofu rek laa yem après dinaa indi lu ci des Koura Macky jaar na fi man Assane Diouf jaar naa fi Pape Diop jaar na fi keneen jaar na fi dooméram man <laughs> dama leen a fekk ci seen slogan rek <laughs> yéen yéen a wax ne jub jubal jubbanti man ma dolli ci liggéey jub jubal jubbanti loolu la ñu xeexee waa ak waa APR non loolu la ñu xeexee ak le forme président maanaam lancien président Macky yàlla na ko yàlla defal jàmm du loolu lañ doon xeex ak moom ah ak ay nitam jub jubal jubbanti ngeen ñëw indi slogan boobu parce xam ngeen ne ñun dañoo sonn ci jub jubal jubbanti man man man seen grand frère bi nga xam ne maa leen mag maa leen njëkk a xeex may leen fit ngeen ubbi seen làmmiñ ci caméra bi jàkkaarloog président wala nguur man Assane Diouf yee <laughs> après ngeen bañ man ma retourné ci slogan boobu ah président Diomaye jub jubal jubbanti waaye ma dolli ci liggéey jub jubal jubbanti ñi nga àndal dafa am ñu jubul te waruñoo dugg seen nguur comme man man bugguma ngeen jox ma dara man moom sama métier doy na ma sëkk te daanaka léegi rek yàggatul dara damay dem wuy ji suñu boroom li ma dund gaw ma ne dinaa ko dund dundaat moo ko yàlla defalee alhamdulilah mais xolal ñii dem gënuma leen Baay Faal jub jubal jubbanti sàcc nga soskat nga bis bu nekk nga toog ci caméra bi di fen ba man mi taxoon nga njëkk a toog ci caméra bi ma gedd la ndax say fen parce que gëw ne doomu aadama mën na toog di sotteekoo noonu di fen man je suis ça dama am lii dama def lii dama lii te li ngay wax yépp ay duul la ay nit saraxuma ba sonn pour sama digganteek yow jàmm non parce que bokkul ci li ñuy xeex Yacine Fall jub jubal jubbanti suñu conseil buñ koy jox dañ koy jox ñu jub jubal jubbanti ñoo xam ne sàccuñu triyandewuñu Pape Diop ngi fii sos yi ci yi mi ngi fii ak yeneen ak yeneen ak yeneen yuñ dul wax ay trian tudduma turu kenn <laughs> lan moo tax doomiram bi war a génn rek ah? naan waaw ah gaayam bi xam ah, naan te li muy wax yëpp day duul barke naa Muhammad musuma dawal ci permis bu nekk ci turam tur bi ngeen koy woowee musuma dawal man Assane Diouf ci permis bu nekk ci turam pour indil leen ay preuve parce que moom nee na am na ay preuve man maa ko ëppi preuve fuuf parce que man li may wax dama koy wax sama teeyu bakkan dama koy wax ci dëgg dama ko wax ci sos ma ko wax ci fen te yow ñëpp xam nañ la sos fen triande <laughs> sàcc sàcc toog ci oto ki gi ngadd ngaddalu munoo toog sax sa kër laa parce que li ngay wax yëpp ay fen la tu n'es pas confortable nga toog sa kër xoolal sa njaboot toog nga nga def sax live wala nga wax parce que oto bi rek fen rek fen rek oto bi alalu sàcc la liggéeyoo ko waneen kayitu fi ngay liggéey wala fi ngay amee paycheck waneen kayitu entreprise bi nga yor wala dara yéen waa New York ngir yàlla wa rasul yi da ngeen a gëm yàlla yéen a xeex yéen waa diaspora ngeen wax ne réew mi jub jubal jubbanti man xolal même bu ma mësee sàcc tàngal tàngal boobu ma sàccoo naa ah, tax na xolal Basiru joxal ñi jub ñiy jubal ak ñiy jubbanti man ma yor sama làmmiñ di la surveiller parce que yow nañu dénoncé ku dénoncé tamit ñu neexal la te man damay doog a tàmbali mais ci seen biir sàcc yi fa nekk fenkat yi nga xam ne tàmbali woon naa ci depuis élection ya ba ñenn ñi tey ñu leen di yónnee ay plainte te waxoon naa leen ne ay fenkat lañ te plainte yi ñu leen yónnee plainte sosal nit ak fen la <laughs> loolu moo ma fi bàyyi yéen waa Amérique hey brother I love America America, wake me up. America, put me to be who I am today. America, the first nation in the world, the first number one powerful country in the world. Who's going train you, teach you? make you to understand what's going on around the world. Hey, come on, my brother. You talking to me, Hassan Diouf. No, He's not going to work, my nigga. You're a thief. You're a thief. You are a modern thief. You are a liar. Negro. You. That's why the American people, some of them call us a Negro because somebody like you who's going to America, you don't do nothing but steal. You don't have no paycheck, Negro. Don't me use, please, I'm sorry people about using, you know, that, that, <laughs> that N word, you understand? But, you know, I have to talk to this guy, man. I'm sorry. Thank you very much. Thank you for my people. One love for life. sàcc bi génnal nga wax ne sàcc nga noo yor suñu conseil loolu la ñuy wax man Assane Diouf amul problème maa sàcc sa permis moo tax bugguma benn position man néega bugguma dara bugguma dara sama métier comme sama loxo yi mooy sàcc ah di sàcc ay permis ah yee naa continuer def loolu xam li ma la ñi nga xamante ni dañoo jub ba pare di jubal ba pare war a jubbanti xoola ñu bàyyi leen ñu yor li nga xamante ni askan bi yëpp ko bokk ci loolu la ñuy wax waxuñu ay affaire dafa sàcc sama eh. sama gars yi dem leen ci State Department bu United States of America ngeen google kan mooy sàcc kan moo am feloni kan man ku ne xam na li ma indi Sénégal yàlla leen yàlla defal jàmm defal ko mbokk Sénégal yëpp di wax sama mbokk Daaru Salaam yëpp yu maajal ñu waajal màggal Daaru Salaam fii ak ay fan incha allah jërë ngeen jëf merci